procureur wax ne leen tëj lu si ñaari ati kaso ñoom nag altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal si lañ leen di létt wala si lañ leen di fure te nag Serigne Moustapha Sy jamono ji nag ma ngi jàkk mbir yi maanaam di xaaraat ginnaaw loolee tamit lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak audio yi nga xam ne moom la MC Niass wax audio yoo xam ne maanaam nee nañu doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne maara day tali ginnaaw loolee tamit mën ñuy joxar tuuma ne dañoo ngar nga xam ne mooy alalu askan wi Assane Samb ci réew mi quotidien nee na tension bi nga xam ne moo am ci ma ngi mel tulleeg male waaye nag boo ci yokkee ñetteelu candidature Macky Sall bi nga xam ne jamono ji gaa ñoo ngi koy ngawtu ngawtee nga xam ne moom la mën a indi ci gi délibération daal di wax ci rapport bi nga xam ne jëm na ci xaalis bi ñu jagleeloon coronavirus journal bi ba mu commencé ci Sénégal dañoo waxoon ne nañu créer benn compte bancaire bancaire nag maanaam gars yi commencé nag di participer gars dañoo dem ubbiwaat beneenu compte bancaire ca wet ga loole nag rapport Cour des comptes moo ko daal wane li nga xam ne moom la askan yu participer ni ndimbal maanaam toll na ci 19 milliards Cour des comptes daal leen di wax ne leen nag 19 milliards ñun gisuñu ko ci compte bi nga xam ne moom la ñu créé woon 17 milliards lañ ci fekk ana yeneen ñaari milliards ya ana yeneen ñaari milliards ya yéene dugalaat lan moo tax maanaam ngeen di dem di créer beneen compte bancaire ci wet gi loolee mooy laaj ba yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy naan ñu mal gouvernance bi nga xam ne moo am ci xaalisu covid 19 bi doy na waar jéggi na dayoo ñi nga xam ne nag ñooy daas yi ñooñee jamono ci ñoom lañ bëgg a wékk lépp waaye nag ministre yi ak nag waa trésor ñoom tim kenn nag demul ñu des naam nag ñi nga xam ne ñooy daas yi mën nañoo wax ne maanaam xaalis bi ci seeni loxo lay jaar waaye nag ministre yi ci boppam ñoom ñooy responsable ndax ñoom ñooy sant daas yi yéen a kaay gi de xëy di ñu xibaar nan ñu en am ba des sal milliards nga xam ne sàcc nañ ko ci fond covid 19 bi bëri na xeetu bëri koo xamante ni maara day taal waaye nag na leer na ñi nga xam ne ñooy ministres yi ñooñee ñooy joxe ay ordre maanaam ñooy sant daje ngir nag ñu mën a génne xaalis bi maanaam lépp loo xam ne daje yi def nañ ko na leer na ministres ñoo leen ko sant yéen kaay gi di bi nee na am ba des sal mën ay rapport moom yàgg na fi lool maanaam mbooloo du daal di wujjee Cheikh Omar Anne moom nekk na fi nag di menacé ki nga xam ne mooy Nafi Ngom Keïta mi nga xam ne jamono moo jiite woon OFNAC Cheikh Omar Anne bi ñu koy épinglé ci lu jëm ci wàllum kudd Mohamed Boun Abdallah Dionne moom tim rapport OFNAC 2015 nee na rapport OFNAC 2015 sa lam ca waxoon mooy comme fromage hollandais maanaam nag loo xam ne daal dañu koy wax nii wax ko ay fan daal ciy pare yéen kaay gi de la réveil quotidien xëy duñu ñu xaalis bi jël nañu ay millions yu baree baree baree bare maanaam def ci ay activités yoo xam ne yoonu coronavirus nekku ci journal bi nee na ki nga xam ne mooy Mariama Sarr moom tim joxaar bi nañ ko baaraamu tuuma ci lu ëpp nag 73 millions Abdoulaye moom tim joxaar bi nañ ko baaraamu tuuma ministre journal bi nee na ki xam ne nag moo nekk directeur prévention di Mamadou Ndiaye moom tim nag jëfandikoo na xaalis boo xam ne laaj nañ ko ay justification xam ne déglu Adji Sarr ci audio yi nga xam ne Baye yi moom la audio yi moom la na ñi nga xam ne tudd na leen ci audio yi maanaam xamu leen te musu leen a gis Adji Sarr nee na dafa fen Baye Mbaye MC ngir nag doon xool ba xam nit ku diiñ la waaw wala déet ginnaaw loole nag moom Adji Sarr tamit daan nay wax ne Baye Mbaye MC moo na ko Adji Sarr réclamé laaja lu toll ci 600 millions ak ay terrain waaye nag 600 millions yi yi mën nga koo daal di verser ci sama compte bancaire journal bi nee na Adji wax na Maham Diallo na ko est xam nga ne kii di Mbaye Mbaye MC nag maanaam daf maa bëggoon a takk yéen kaay gi di réew mi ko dajee moom tim bàyyi mbir moomee daal di wax nag ci mbiri Pape Alé Niang mi nga xam ne ni ki démb dañu koo daal di mandat dépôt procureur nag li muy tuumal Pape Alé Niang nee nag dafa violé li nga xam ne moom lañ tënkoon ci contrôle judiciaire bi maître Khoureyssi Ba nee na bii mooy mu gis ñu daal di def nag ab révocation ci lëg lu jëm ci contrôle judiciaire nee na nag lii ak ëppal nee na Pape Alé Niang daal démb daan nañu koy mandat dépôt waaye nag nee dafay door li xam ne mooy gréwu xiifa la te xam ne mooy am ba des nee na gars yi dañu ko noppi loo waaye nag du noppi benn yoon moom Pape Alé Niang nee nag bu neexee gas leen ab ngeen dugal ma ci dugal ma ci bu leen neexee am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buura kàddu yi Pape Alé Niang la yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Seydi Gassama mi nga xam ne mooy directeur exécutif Amnesty International section Sénégal ko dugal ci kasu bi teguwul fenn te nag lii dañoo bëgg gars yi dañoo bëgg gars ñu daal di fàtte li nga xam ne mooy rapport Cour des comptes bi waaye nag kenn du ko fi fàtte kenn du ko fi fàtte kàddu yi Seydi Gassama la yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu exploitation bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci la jëm ci wàllum or bu Sabodala mën na la doy na waar de ndax ñi nga xam na ñooy entreprise yi ñoom nag si boppam danañu am seen or or bu bëree bëree bëree ñoom ñi nga xam ne ñooy entreprise yi exploité or bi nekk ca la état bu Sénégal nag moom tim dana si encaissé ay milliards yu bare bare bari jëm ci wàllum taxe waaye